donc surtout nak ngeen aimé vidéo yi té diko partager lolou day ngeen ñu mëna jappalé jàppale mbokk ci réaction bi Iliman Ndiaye am à travers son compte Instagram démb bi nga xamante suñu international sénégalais bi di Boulaye Dia na triplé bu historique historique lañ ma taw mëna wax parce que triplé bobu non moom moko permettre mu nekk meilleur buteur de l'histoire de Salernitana en Série A également permettre na ci tamit mu dugal 15e biom mu nekk statistique yu extraordinaire mën nañoo wax daal suñu attaquant bi instant bi il marche dans l'eau voilà gannaaw loolu nag euh, euh, Iliman Ndiaye réagir na waaw di wax ni di ko di di wax que ne Boulaye en feu et également di wax lan moo nekk ci numéro 29 bi nga xamante ne ku ko takk sa gannaaw rek da ngay performer da ngay dugal ay bi loolu la Iliman Ndiaye wax ci compte Instagram mu nekk lu am solo ndax affinité boobu bëgg nañ ko ci suñu gaynde yi. ñëw leen ci commentaire ngeen wax seen xalaat